nopp na giraawaali gu mag ci wàllum xaalis lañu nemmeeku ci réew mi coowal ger gu rëy amatina ci kërub loterie bu Lonase lu ëpp ci sénégalais yi saa yi suñu déggee turu Lonase seen xel day dem ci alal ju bare bari koom-koom bu yaatu yomb te gaaw waaye mel na ni loolu yépp ay naxaate dong la ab waay buy wuyoo ci turu Sidi Mohamed Mboup moo gañee ab loterie Pari Foot bu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay millions te ba fi mu toll nii mi ngi topp ci ginnaaw lonaas di daw ngir jot alalam jooju mu ko tëj bu ñu sukkandikoo ci waa Lonase nag mbir mi ay jumte dong la waaye mel na ni mbir mi lëndëm lëndëm jogu ci ger sax daanaka am na ci am na yenn ci waa Lonase yi dañoo jaar ci suuf ngir dem jëndi ticket Sidi Mouhamed Mbuub boobu am na sax daanaka ñu ko fay ba ñaar ci ay millions mu bañ nu mbir mi demee dëgg-dëgg ndax ay naxaate moo ci am ndax wàllum ger lu wér la xanaa directeur bu LONASE bii di Amadou Samba Kane yëgul li xew ca kër ga lu ci mënti am daal dinañu leen ko toppal tànk ak tànk ngir indi leen ci ay leeral yu wér jërë ngeen jëf